am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci ñaari njàng yi weesu jàngoon nanu ni yàlla sàkke ñaari nit ñu jëkk ña ci loolu mbind mi nee yàlla sàkk nit ci melokaanam ci melokaanu yàlla la ko sàkk mu sàkk leen góor ak jigéen noonu yàlla soloon ci ruwu góor ak jigéen xel ba ñu mën a xam yàlla ak xol ba ñu mën ko sopp te it yàlla dénk leen coobare ak sañ-sañ ba ñu mën a tànnal seen bopp déggal ko wala déet gisoon nanu it ni yàlla jëmbate toolu ajana ci kaw suuf tàbbal ca nit yàlla ci mbaaxam mayoon na nit ku jëkk ka di aadama ak jabaram awa lépp ba ñu mënoon a dëkk ci jàmm ak naataange gu mat yàlla dafa bëggoon nit ñi xam ko bëgg ko te màggal ko ba faaw naka noonu gisoon nanu ni yàlla tege woon natt bu woyof ci kanamu nit ki mu sàkk yàlla def garabu xam lu baax ak lu bon ca diggu tool ba sant aadama ne ko mën nga lekk ci bépp garabu tool bi waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faawu nga dee lu tax yàlla nattoo aadama nii ndaxte yàlla dafa bëggoon a wone fu xolu aadama tollu yàlla natuwul adama ngir bàkkaarloo ko waaye ngir barkeel ko nit ki yàlla sàkk amul woon sikk te amul woon bàkkaar wante loolu taxul woon mu am mbëggeel gu mat sëkk walla jikko ju dëgër kon yàlla tegoon na nattu ci kanamu aadama ngir nattu mbëggeelam su aadama dékku woon nattu bi ba déggal yàlla dina wone firnde ci li mu bëgg yàlla ci biir xolam te it su aadama dékku woon nattu bi ba bañ a def bàkkaar nattu boobu dina ko dëgëral ndaxte mbind mi nee na muñ ci nattu mooy ndeyu jikko ju dëgër tey ji nag agsi nanu ci ñetteelu saar ci téereb njalben ga saar wi dafa nuy won ni bàkkaar dugge ci àddina si sunu xamee li saar wii di jàngale dinanu xam lu tax xolu nit dëng te soxor ak lu tax àddina si fees dell ak coona ak metit gis nanu ba noppi ni aadama ak awa nekkewoon ca ndoorte la ca toolu ajana te am fa naataange ju mat ngir mën ci bànneexu te li gënoon a neex ci loolu lépp moo doon borom bi yàlla daan na jaar ca tool ba bés bu jot bu ker gi seddee ngir waxtaan ak aadama awa yàlla daan na def loolu ndax te dafa bëggoon a am diggante bu xóot te neex ak ñoom wante mbind mi dafa nuy nettali ne amoon na keneen ku nekkoon ca toolu ajana ndax xam ngeen ku mu doon kooku moo doon bañaaleb yàlla bi di seytaane iblis bi yàlla di sàkk àddina si ak lépp li mu ëmb seytaane ngi doon seetaan bi yàlla joxe aadama ndigal li ci lu jëm ci garabu xam lu baax ak lu bon seytaane ngi doon déglu te yemul woon ci seet ak déglu rekk wante doon na rabat pexe ngir nasaxal jëfi yàlla yépp seytaane façon na yéene fiir nit ñi yàlla sàkk ngir ñu moy ndigalu yàlla tàggoog yàlla te sànku yàlla moom xamoon na lépp li seytaane façon yéene def wante adama ak awa xamuñu ci woon dara kon am bés adama ak awa taxaw ca wetu garab ga yàlla tere woon seytaane ñëw ci melow jaan tàmbali wax ak ñoom noonu mbind mi neena jaan nag moo gënoon a muus ci rabi àll yépp yi aji sax ji sàkk noonu mu ne jigéen ndax yàlla wax na bu wóor ne bu leen lekk ci genn garab ci tool bi nanu taxaw fi tuuti lu tax seytaane ñëwoon ci melow jaan mbind mi tontu na ci ne jaan nag moo gënoon a muus ci rabi àll yépp seytaane fiirkat la kon mbubboo woon na lu am xel seytaane ñëwul ci aadama ak awa ni ninki nànk ju rëy te xonq cur ne leen asalaamaaleykum aadama ak awa man maay iblis bañaaleb yàlla dama ñëwoon tey ngir fiir leen ba ngeen dëddu yàlla aji dund ji te sànku ba faaw seytaane jëfewul woon noonu de naka la leen feeñoo woon nag ci melow mbindeef mu rafet te am xel mu tànn wax ak ñoom jaare ko ci jaan ja ndaxte ca jamono jooja laata bàkkaar di dugg ci àddina jaan moo gënoon muus ci rabi àll yépp seytaane noonu la mel ba tey dafa muus day faral di mbubboo lu baax loolu la mbind mi wax bi mu naan seytaane moom ci boppam day mbubboo malaakam leer looloo taxit yàlla artunu ci kàddoom naan moytu leen ñi mbubboo turu yonent dañuy ñëw ci yenn yor melaw xar waaye ci biir ay bukki soxor lañu seytaane naxkat la looloo taxoon mu ñëw ci aadama ak awa yor melow jaan ju am xel te loolu it a tax mu taamu wax ak awa te bañ a wax ak aadama ci boppam ndaxte dafa yaakaaroon ne fiir awa mooy gën a yomb fiir aadama seytaane xamoon na ne aadama la yàlla joxoon digal ci mbirum garab ga laata muy bind awa wante awa itam xamoon na ndigalu yàlla ndaxte aadama moo ko ko jartali ci lu wér iblis ku am xel la te xamoon na xel li mu bëggoon a def seytaane xamoon na ne su mënee nax jigéen ji mu lekk ci garab xam lu baax ak lu bon mën na am aadama moom itam dina ko topp ba déggadil yàlla naka noonu mbind mi ne jaan jane ne jigéen ja ndax yàlla wax na bu wóor ne bu leen lekk ci genn garab ci tool bi ndax dégg ngeen bu baax li seytaane wax awa mu ne ndax yàlla wax na bu wóor ne bu leen lekk ci genn garab ci tool bi ndax gis ngeen li seytaane bëggoon a def dafa bëggoon a sol ci xelum awa ay sikki sàkka ci kàddug yàlla gu wóor gi moo tax mu ne ndax yàlla wax na ndax yàlla wax na bu wóor ne ba tey seytaane noonu lay def day xeex ak kàddug dëgg gi ndaxte xam na bu baax ne kàddug yàlla am na doole ngir futti ko te werale ay fenam seytaane xam na ne dëgg gi day dàq fen ni leer gi dàqe lëndëm gi léegi nag nanu déglu li des ci waxtaan wi ci diggante jigéen ji ak iblis mbind mi nee na jigéen ji tontu jaan ja mën nanoo lekk ci doomi garabi tool bi waaye garab gi ci diggu tool bi yàlla nee na buleen ci lekk bu leen ko laal sax ngir ragala dee jaan ja ne jigéen ja mukk du ngeen dee waaye yàlla xam na ne bés bu ngeen ci lekkee seeni bët dinañu ubbeeku te dingeen mel ni yàlla xam lu baax xam lu bon lu doy waar ngi nii de yàlla lan la waxoon aadama ak awa ne dina leen dal suñu lekkee ci garab gi mu leen aaye woon ne woon na di ngeen dee lan la seytaane wax nag mu ne du ngeen dee noonu seytaane yamul rekk ci weranteeg waxi yàlla wante dem na sax ba weddi ko lu ngeen ci xalaat kan moo waxoon dëgg yàlla walla seytaane soxlawul tontu sax mbind mu seele mi dafa wax ne yàlla moo di aji dëgg ji te mënula fen wante seytaane moom du taxaw mukk ci dëgg ndaxte dëgg nekkul ci moom buy fen dëppoo na ak jikkoom ndaxte fenkat la te ci moom la fen soqi wante war nanu fàttaliku ne seytaane du fenkat rekk waaye naxkat la itam dafa muus day jël lu dëgg jaxase ko ak dëgg mën nanu gis loolu ci li mu wax aadama ak awa ne su ngeen lekkee ci garab gii di ngeen mel ni yàlla xam lu baax lu bon seytaane ne di ngeen mel ni yàlla feni kese la woon ndaxte ku def bàkkaar doo mel ni yàlla wante ni seytaane ngay mel wante ba seytaane waxee dingeen xam lu baax ak lu bon waxoon na dëgg ndaxte gannaaw ba aadama ak awa defee baakaar xamoon nañu lu bon wante seytaane waxu leen woon ni xam-xam boobu dina leen wex yàlla ne woon na su ngeen lekkee ci garab gi dingeen xam lu baax ak lu bon te dingeen dee wante seytaane ne woon na su ngeen lekkee ci garab gi dingeen xam lu baax ak lu bon te du ngeen dee seytaane fenkat la moo tax bi yàlla waxee di ngeen dee mu wedd ko ne du ngeen dee aka noonu gis nanu ne waxtu bi aadama ak awa waroon tànn diggante kàddug yàlla ak kàddug seytaane jot na tànn bi nekkoon ci seen kanam mooy lii ndax dinanu nangu dëgg gi wala fen wi topp aji leer ji wala aji lëndëm ji ndax dinanu gëm waxi yàlla walla waxi seytaane kon nanu jëm kanam ba gis li ñu tànnoon mbind mi nee na noonu jigéen ja gis ne garab gi neex na lekk rafet na gis te jar na bëgg ngir mëna a ràññee kon mu daldi witt ci doomam lekk ko mu jox ci it jëkkëram ji nekk ak moom mu lekk lu doy waar ngi ni nit ki yàlla sàkk ci melokaanam ngir mu mën koo xam bëgg ko te déggal ko ba faw lu mu defoon ndax dafa soppoon yàlla boroomam ba dégg ndigalam déedéet dafa tànnoon déggadil yàlla aji mbëggeel ji te sopp seytaane bañaaleb yàlla ci lu wér bés bu tiis la woon lool sunuy maam adama ak awa dëddu woon nañu yàlla aji sax ji lekk ci doomu garab gi mu leen tere woon te ni wolof yi waxe ne musiba du yem ci bopp boroom noonu itam kàddug yàlla dafa wax ne kon nag bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp bàkkaar nu bañ ko wala nu bëgg ko loolu la kéwal du tëb doom ja bët man ak yow ak nit ñépp ay bàkkaarkati judduwaale lanu te faw nu dee ndaxte ci aadama lanu soqi ko moom mi ñàkkoon a dégg ndigalu yàlla mooy sunu maam te nun ñépp ko niru kan ci ñun moo mën a wax ne mësula mooy benn yoon ndigali yàlla amul du kenn sax kon boog jikkoy bañ ndigalu yàlla jooju nekk ci sunu xol fan lanu ko donne ci aadama musiba du yem ci bopp boroom bàkkaar bi nekkoon ci aadama moo law ba ci nun mel ni jàngoro ju bon juy wàlle waaye nag yaakaar jeexul ndaxte kàddug yàlla nee na tamit jàddu kenn nit ka rekk moo waral yàlla daan ñépp noonu itam jëf ju jubu keneen nit rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub ci kanamu yàlla te am dund gu bees mënunu ci dugg léegi waaye ci njàng yi di ñëw dina dinanu gëst ci mbirum yoonu mucc woowu yàlla tëral ngir bàkkaarkat yi mën a jub fa kanamam mbokk yi loolu moo doon seen émission yoonu njub beneen yoon fas nanu yéene wéy ci saar wi ba gis lu xewoon gannaaw ba aadama ak awa jàddee yoonu njub topp yoonu njubadi jërëjëf ci déglu bi waaye nu ngi leen di fàttali ne njàng yi nu def yépp am nanu ci ay kaset su ngeen leen bëggee am bind leen ñu ñu wax leen nan ngeen di def ngir am leen su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey nag bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen def seen xel ci li mbindi yonent yi jàngale bi ñu naan bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp ba bàkkaar